Moustapha Diakhaté ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay euh, njiital euh, mouvement Manko taxawu sunu APR alors ñuy waxtaanee mbas mi nga xam ni dafa yitteel sénégalais yépp bokk nga ci ñooñu euh, tey ñu gis kaay yi ni mu baree ñu bari njort ne lañu doon ragal lataa tabaski bi di yegg si moo nekk nii di am tey est-ce que yow tamit gis-gis boobu nga ci am. oh li ma jàpp kay mooy li xew nii bettul kenn ndax jàngoro ji moom ginnaaw dafa gaaw wàllante te lu nit ñi gën a jaxasoo wàllante bi a gaaw war nañoo xaar ne li am ci tabaski gi li mu mën a jur mooy li am mooy lu matul ñetti fan lu war a mat presque trois cent personnes ñu wàllaate jàngoro ji loolu moom war waru woon bett kenn moo tax jàppoon naa ne li ñu waroon def mooy bañoon tabaski malheureusement Sénégal nag moom dañoo dañ mel ne dañuy taxaw ba noppi naan yor nay tànk wax dëgg yàlla man dañu bettu man li mu mel nii te jàpp naa ne liñ jëm buñ ci jëlut mesures yi ñu ci war a jël mooy yées loolu moom dara ma bettu ma. Hmm. léegi euh, lu ni mel euh, kan moo ci am responsabilité ndax état bi la ci ñàkk jël ay mesures yu forte ngir tere dem ngeeg dikk gi wala nit ñi la ci ñàkk sàmmonte ak euh, geste barrières yi. non état bi moom mooy responsable premier parce que état bi moom la sénégal yi dénk seen wér-gu-yaram jox ko alal jum ko mën a jum ko war mën a mën a mën a sàmmi kon bu fekkee am nay rëq-rëq liñ mën a jàpp mooy état bi moo moo def moo def li parce que damaa jàpp ne ni président daf di góorgóorlu woon pour jënd jënd ceeb di ko jox nit ñi suñu góorgóorlu woon jënde ko ay masque ak i gel ak saabu jox ko sénégalais yaakaar naa ne kon booba fi ñu agsi fii duñ fi agsi ni woon di dem ci kilifa diine yi bi mu bëggee falu bu ko defoon demoon ci kilifa diine yi pour boole leen ci xeex bi pour ñu nit ñi di takk masque euh, kon yaakaar naa ne kon yëf yi du agsi fii kon li nga xam ne moo am rek man li ma jàpp mooy moom ci boppam moo lajj lajj gi jiitu ba avant le dugg ci réew mi lajj na ndax matuwaay ya waroon a jël ba Sénégal ay nit duñ fi dugg indi fi jàngoro ji ko ndax bu ko jëloon quatre-vingt-cinq personnes duñ fi dugg indi fi jàngoro ji bi jàngoro ji ñëwee ba nag matuwaay ya waroon a jël fa jàngoro ji fa mu mu yem fa su jëloon yëf du agsi kon li ñu a wax mooy état bi ci boppam moo la ji ci li nga xam ne moom la waroon def pour aar sénégalais ci jàngoro ji mu a ñëw ci réew mi bi mu ñëwee ba noppi nag mu aar leen ba mu bañ fee law ñaar yooyu yëpp am na dugg na fi te mu ngi law loolu nag responsabilité état bi la. Mm-hmm. alors ñu jëm ci yeneen ñaari xew-xew yu mag muy màggal ak gàmmu coow sax juddu na ci dana koy amal ak euh, dunu ko amal loo xalaat ci loola yëpp. waaye écoutez man daal li ma jàpp mooy euh, ñaar yi moom président de la war na cee jóg bu mu gën a gaawee wax cee kilifa yi diine mooy d' abord ci dugalee kilifa yi diine yi ba ñu yëkkati seen kàddu sant seen taalu bi jàpp naa ne takk masque bi dina dina gën a yokk waaye nag pour mu yombal liggéey bi aussi jaadu na alal ji nga xam ne moom la laajoon mu jënd ci ay masque jox ko askan wi jàpp naa ne bu kilifa yi waxee ñu jox askan wi ay ay masque su boobaa bu buñ tegee police ak gendarmerie ci mbedd mi ñun ñu takki masque man jàpp naa su boobaa du am benn benn benn benn benn loolu a la ñu war a def. dañ ko a dàq wala dañ ko amal war a amal muy màggal gi ak gàmm gi. ndax itam luy dajale ay nit la comme tabaski. waaw xam nga ku la ne mën naa respecter ay gestes ay maanaam ay distanciation physique maanaam di ci xew woo xam ne ay ju ay millions nit ñoo fay daje ko dewal ko neex sama jàpp ne kilifa gi daa war a dajeeg ñoom parce que xam nga nag ren ji yàlla daa woote ci màkk buuru màkk ne bu kenn ñëw dégguma mel réew moo xam ne manifesté nañ ko def mhm. la xew la tax màkk aju ñëw ren pour bañ jàngoro ji ñu wàllante ko ma jàpp nag li li nga xam ne farata dala koo wax dëgg yàlla warul nag sunna sunna sunna di la ko teg lu loolu sunna di la ko teg wala sax loo xam ne du sunna mhm. tabaski gi waaye moom du sunna kon encore une fois jàpp naan daal vraiment ki ki nga xam ne moo yor réew mi te maanaam seenu wér mu nekk ci mu ndoddam war na ko jaral mu dem ci ñoom wax ak ñoom ñu seet pexe yoo xam ne daañu ko mën a def ba ba ba jàngoro ji du du tasaaroo ci réew d'accord kilifa diina yooyu tey lan moo um, war a nekk seen taxawaay ci xeex bi ndax fi mu toll nii wax nañu ne xëy na état communication wam doyatul ngir euh, xëy na euh, tere def askan wi yenn preuve bi mooy bi ministre euh, de la santé waxee bu kenn tabaski ji ku ne na nga toog fa nga nekk kenn déggu ko ñu bari dañoo jug dem ci gox goxaat yi nekk ci réew mi alors tey ñu gis ne bokk nga ci ñi xalaat ne kilifa diine yi war nañu am taxawaay ci fi yëf yi toll lan la ñu mën a indi justement ci xeex bi ak waaw xam nga boo gisee may may may insisté ci kilifa yi parce que d'abord sénégalais ñoom ñoo tànn def kilifay yi diine seen yaakaar sénégalais ñoo tànn di déglu ak dégg ndigalu kilifa yi kilifa yi diine yi ma jàppi ma jàppi ne maanaam aar aar aar dunduk sénégalais euh, kenn maanaam yittey kilifa yi diine yi la te ginnaaw ñoom bu ñu waxee ñu déglu leen te li nga xam ne moom lañ soxla nekkatul xeex boo xam ne ay kër docteur ñoo koy xeex waaye askan wi ñoo koy xeex ma jàpp ne bu ñu bu kilifa yi waxee askan wi moom askan wi dina dina def li mu li mu leen li li nga xam ne moom leen digal maintenant nag pour ndigal loolu yomb day baax nag état bi aussi jox askan wi ay masque parce que masque ni ñu koy yombale yombi noonu parce que nag bu daan bu dee masque bu xaw a tane lu mu doon war cee takk benn par jour trois cent francs loolu ñëpp amuñu ko. waaw bu nag ko amoon sax nag gouvernement daal laaj xaalis bañ jox ko ba noppi kon moom moo war a jëndi mas kon buñ defee loolu nag yaakaar naa bu kilifa yi waxee ñu jëndal nit koo xam ne kilifa digal kilifa yi digal digal nañ la nga bañ docteur yi digal nañ la nga bañ gouvernement bi digal nañ la nga bañ ah boobaa nag ñu war laa teg yoon parce que ku koo xam ne yow bëggoo takk mas kon nga toog sa kër loolu moom ku ne am na droit mbedd moom ku ci génn nga da takk mas boo takk mas ko ñu teg lay waaye fekk jox ñu nit ñi masque jàpp nga ne waruñu leen ko mën a tere. non mais xam nga ni ki mënu mënoo ko obligatoirement da war a takk masque te joxoo ko te te nga laajoon ko xaalis ne ko jox ma xaalis bu ma xeexee jàngoro ji dañoo laaj xaalis xam nga buñ ko laajul na ci mën jox ko nit ñi ak saabu ak justement mille milliards yooyu nu nu ko yoree xelu ñenn ñi teey na ci bokk nga ci ah, xel kay mënu cee dal parce que président la waxoon da koo defut xam nga moom daa waxoon day wut benn comité de pilote maanaam ay jàmbur lay jox ñu ñu ñu ñu gérer xaalis bi mu jékki-jékki génn ci ah kon kay wax dëgg yàlla ku sam <laughs> xel rek waaye wax dëgg moom jàpp naa ne yëf yi moom njublang dugg na ci ba noppi dèjà marché marché yi ko joxee rek ku ne xam ne ne ak njublang dugg na ci xëy na bu fekkoon de pilotage moom moom la tegoon yëf yi du demee nii kon moom li ci am am na ba noppi moom nekkoon nga député président groupe parlementaire euh, teg ci lan mooy responsabilité wu assemblée justement ci nu koppar yooyu ndax gis nañu ku mel ni Aïda Mbodj euh, sàkk woon ci ñaari ministre ñu ñëw leeralal askan wi xaalis bi fan lañ ko dugal ak euh, lan lañ ci def assemblée moom li ko war moom jëkkoon na ko def mooy defal na loi d'habilitation par exemple pour mu am mille milliards loolu assemblée def na li muy def ba nopp dina leen yónnee nag nga xam ne moom la noonu la ko jëfandikoo su ko defee boobaa assemblée wax ni mu ci gisee xalaat loolu nag ak guñ ci. loolu du fekk bay wey mbuus. Ah, non béy moom béy na mbuus béy moom ba président bañ a créé comité de pilotage la la way mbuus li yàq ko yàq na pare parce que bu fekkoon ne daa créé daa bëggoon lu jub la ma waxoon moom lay def mooy créé comité de pilotage jox ko ay nit ñoo xam ne ay jàmbur lañ waaye dugal ci ay soldat rek ak ak i politiciens ak i fonctionnaire loolu moom bu kooku moom xanaa boppam lay ndax waaye Sénégal yow jàpp naa ne xaaruñu dara ci ne yëf dina moom loolu amu ci ndam jàngoro tey la gën a bari tey la ndóol gi gën a bari tey la euh, këru liggéeykat yi gën a am jafe-jafe mm. kon mel na ne alal jooju ma alal ju def dépensé nañu alal ju bari ci loomu benn njëriñ d'accord ñu daal di ñëw ci élection locale yi ñu ngi ko jàpp euh, weeru mars atum 2021 ci li ministre de l'intérieur waxoon waaye ñu bari yaakaar nañu ne ak mbas meek euh, yeneen ak yeneen boo moytuwul élection yooyu du am yaakaar nga ni dañu koy dàq yooyu locale ah en tout cas bu fekkee Sénégal yi jëluñu seen matuwaay daañu ko jàpp naa daañu ko daax parce que li ma jàpp mooy Macky Sall moom fii 2024 bëggu fi ay élection maanaam waxuma la élection locale yi waaye bu ñu defoon ndànk sax élection législative daañu ko daax loolu nag euh, du yoon parce que élection mandat bi le suffrage mandat yi Sénégal yi moom suñ la falee jox la mandat juróomi at juróomi at yi jeexee dañoo war a delloowaat askan wi baata mu tànnaat mu tànnaat ñi mu tànnoon wala mu tànn ñeneen loolu nag bu fekkee amul ci ci na kon encore une fois man jàpp naa ne daañu dàqaat élection législative locale yi mais jàpp naa ne sax bu ñu defoon ndànk daañu ci boole élection législative yi. Hmm. nga jàpp ne dañuy dàq législative yi. waaw damay jàpp ne xëy na Macky Sall bañ la maanaam jaan ja matoon socialiste ay 1998 wala jaan ja matoon parti démocratie sénégalaise 2009 bañ ko mat maanaam perte ay élection avant présidentielle bi mm. xëy na loolu lay éviter parce que ñaari muy parti socialiste ba mu perte élection 2024 2000 en 1998 dafa dafa daanu 2000 euh, en 2000 en 2000 mm. euh, parti démocratie sénégalaise bi mu perte élection locale yi 2000 2009 élec 2012 dafa daanu xëy na loolu lay bañ waaye nag bañ a daanu warul tax mu mu mu mu mu foqati li nga xam ne askan wi moo ko moom mooy l' élection des conseils municipaux et l' élection des conseils départementaux. kon daal da jàpp ne bu desee ci président Macky fii ba du ñu fi am benn élection. Euh, ok mën naa ko waat moom <laughs> loolu <laughs> yi di ñëw intéressé na la fas yéene nga caa bokk. waaw man li ma gën a mooy ñu tabaxaat beneen politique de décentralisation parce que bii fi nekk moom ay ay caaxaan la rek maanaam politiciens yi ba léegi ñoo boo demee conseil municipaux yi wala conseil départemental foofa dem fa ne politiciens ko ñoo ko ñoo ko téye te hmm. damaa jàpp ne affaire élection affaire collè mairie ak département dañ ko war a delloo nag askan wi bu ko defee assemblée nag boobu politiciens yi dem fa ak yeneen yeneen kii mais askan wi ñu bàyyi leen maanaam ñu dëkk ci quartier yi ñu def ci village ñu bàyyi leen ñu nekk ci conseil municipal bi yoral seen bopp seen mbirum bopp mm. man loolu ci lay xalaat euh, ñu ngi ci xalaat bu ak xalaat baag see dañ ko génne teg ci mbedd mi pour wax ni Sénégalais ñun nii lañ bëgg ñu doxale ko boobaa ñu d'accord ci loolu ak ñun ñu sumb ci xeex bi pour fexe ba loolu mën a taxaw. Euh, lanay sa yéene askan wi yoral seen bopp yëf yi. yoral seen bopp seen yëf yi man damaa jàpp ne ñii nekk conseil municipal dañu war a xam ne quartier bu ne ñoo yaa war a tànn ña lay demal ci conseil municipal bi bu ko defee boobaa carte boo fa nekkee doo fa nekkal parti politique mais carte bi la tànn nga ngay nekkal te boobaa jàpp naa ne boo ginnaaw yow ci quartier bi nga dëkk dinañ xëy dinañ gis di di gont gis su boobaa jàpp naa ne la ngay def ci conseil municipal bi da nga fexe ba mu baax parce que yow ñi la ñi la fa ñi la fa nga gis leen je que loolu mooy lu xalaat yu bëri la ñu war a indi pour xoolaat ba xam nan la ñuy tabaxaatee beneen politique de décentralisation pour nag jox comme conseil municipal yi non seulement ñu delloo ko askan wi waaye ñu fexe ba bi loolu moom jàpp naa ne xalaat bu bu ñu war a def la ñun ñu ngi ci xalaat bu yëf yi ak tamit engagé wu ngir mën a jël place bi nga xam ne politiciens yi. ñoo ah, ah, mooy mooy mbir mi xam nga politiciens yi askan wi boo ñu engagé yi ñoo leen xajalut Hmm. waaw politiciens ñoo xajalul askan wi léegi nag askan wi dañoo war a fexe paaxe moo xam ne askan wi moom dana mën a dana mën a jël yëfi boppam nga xam ne bu demee ci conseil municipal bi ab quartier la fay nekkal wala village ba mu dëkk waaye du fa nekkal parti politique loolu mooy li war a a dindi ci conseil municipal yi bu ñu ko tànk dindi wuñ ko rek ko euh, mairie yi ak ak département yi seen liggéey du du du baax ni mu war a baaxee. te yow loolu ci élection locale yi a koy tàmbalee. incha allah d' léegi ginnaaw loolu mën nañoo njox xëy na di nga nekk euh, candidat pour benn oh. benn benn gox. fii daal li ma nekkaan daal mooy ñu tabaxaat beneen beneen beneen beneen décentralisation ñu tabaxaat beneen pouvoir communal maanaam fexe ba mairie commune yi am doole maanaam askan wi yoral ko seen boppam mais aussi ñoom seen ñu am leen jox leen sañ-sañ yoo xam ne daañu xam ne noonu la askan wi jàppee noonu moo baax ci ñoom. lu tax nga moom maire yi moom wax dëgg seen bopp lañ fa nekkal damaa jàpp nag pour conseil municipal dañ ko war a bàyyi askan wi bu ko defee nag ay assemblée nationale yu mel noonu ñu bàyyi ko politiciens yi su ko defee kenn ku ne am looy def waaye da ngay gis benn waaye boo xam day nekk ministre nekk maire nekk directeur nekk maire. Mhm. nekk député nekk maire. waaw cumuler fonction yu dul jeex à ce moment yow li doo ci def lenn lu baax waaye waaye loolu koy bàyyi woon ci dëkk bi ay ay conseils municipaux yoo xam ne ci dëkk ba lañ dëkk ca quartier yi lañ dëkk. ñu ñu ñu ñu xëy di gont di demal mais di demal loolu koy jàpp naa ne moo gën waaye politiciens yi ñoo ñoo yor ñoo nank lépp loolu na jàpp naa ne gënu tees jërëjëf Moustapha Diakhaté ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi maa ngi lay gërëm jërëjëf